taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di leen fàttali rek li jëm ci ñuy faral di tukki di ko nëbbu mu immigration clandestine bi nga xamee ne fi ñu toll ni metti na lool ci africain yi rawatina ak ñi nga xam ne ñoo féeteeg euh, suñu réew mi nga xam ne moom ci gën a yitteel nag waaye daal euh, am na lakk gu méttee méttee métti bu am ci Espagne goo xam ne li ko waral mooy dafa am men taax boo xam ne bi daanaka sax complexe la woon buñ doon liggéeyee waaye daanaka ñu bari dëkkatuñ fa woon émigré yi nag dañoo demoon solo fa bari fa lool lool lool ci bâtiment boobu ba wala bërëbu liggéeykaay boobu nga xam ne dañ ko bàyyi woon noonu far yàlla dogal nag mu tàkk am lakk gu méttee méttee métti ba am na sax lu fàq ci taax mi lu daanu ci suuf lu mu gàtt gàtt lu tollu téeméeri émigré clandestin ña nga ci woon lu mu gàtt gàtt ay africain am na nag ñu ne ci xabaar bi ay sénégalais ngi ci loolu nag vérifié ñu ko ba xam noonu la demeem déet waaye ci Espagne daal am na ñu ne africain yi ay sénégalais ngi ci am na euh, fi saa si ñu faatu ñu ñàkk seen bakkan am na fukk ak juróom-ñeent yam am ay gaañu gaañu yoo xam ne ñett ñi ñoom seen i gaañu gaañu critique na metti na lool mu di lakk gu méttee am foofu lay ci fa ñu nekkoon nag daanaka doy na waar ndax foofa daal daanaka taax la moo xam ne nii e, kenn nekkatu fa woon émigré yi nag e, doy na waar lool fi nu toll nii rek lu mu gàtt gàtt téeméer ak juróom fukk ci ay sénégalais ay ghanéens ay gambiens e, yu nekkoon ci complex boobu ña nga fa ñu bàyyi woon ko noonu benn biir la bu abandonné woon rek noonu doy na waar daal amuñu lu ñu luyee ñu dugg foofu tàkk na nag. ñu bari faatu nañ foofu. salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. lakk gi doon wax ci Espagne ay sénégalais nekkoon ci benn immeuble toll ci ak yeneen africain ba toll ci deux cent personnes lim boobu am nañ ko waaye daal jot nañ ne quatre personnes daal ay sénégalais nee na ñàkk nañ ci seen bakkan ci ñeent ci ay conditions yu metti waaye nag am na it ñu ne ëpp na ko am na ay xabaar yuñ ci jot ñu ngi koy toppandi ba xam. ndax léeg-léeg xabaar yi moom dañ koy xaw a yéex a dugal ndax li ko waral mooy vérification bi te vérifier dafa baax lool xool boo xam wér na wala déet waaye ñeent yi moom jot na ne ay Sénégal la yu faatu ca lakko bërki gi biig boobu la ca Espagne ñu ngi koy topp nag boo xam ndax mbir mi dafa compliqué trop trop trop trop te gouvernement Espagne moo yore dossier bi moo tax ak waa Croix-Rouge asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam naa coronavirus bi fan yële ñu génn lu jiitu ñuy wax ay deuxième vague ay pic ay yu demee noonu duggoon naa ci groupe bi daal di sànni ay kàddu génnaat daal ne ah nañ ca def ndànk euh, corona bi daal di ah mën naa doy waar ba am na sax lenn ci sama xarit yi ko mel ne Moustapha Diop bu Dakar bi sax ndeysaan euh, doon ma ca laaj ay laaj ndax am xam ca dara ndeysaan mu am solo lool waaye daal corona bi daal loo ci mën a dégg. mi ngi def ravage am na dëkk yoo xam ni la fa xew mënaguñ koo wax ci Sénégal gi ñu bare ngi tëdd te wopp jooju moo leen dal gouvernement bi dogal yi mu jël yeesalaat ko ba feddliwaat ko démb xaw ma barki démb ci rassemblement yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen nañ ko gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax même assemblée nationale gii ñuy wax li fi am ci ay député yu wopp ji xaw a kii xaw naa takku xaw naa takku ndax am na ci ñaar ñoo xam ne ñii wala boo am na ci kenn koo xam ne kii bërki dem rek Marie Louise Diouf yàlla na yàlla jéggal ko ndax itam faatu na waaye daal euh, ci coronavirus bi waaye fi mu toll nii sax am na comme ni ko xabaar yu bëree bëri jotee am na ay député yoo xam ne ñu ngi nekk réanimation la mu gàtt gàtt ñett yoo xam maanaam réanimation mooy sauvetage te am na ab limite boo xam ne bi toll nañ ci fukki nit ak ñeent yoo xam ne ñu ngi ci ab te ay député nga ca maanaam daal li ma bëgg wax mooy corona bi daal euh, gars yi nag ñu ngi xool lu ñuy def ngir ndar kepp ko waaye daal ah fan yële ba ma duggee dama ne nañ ci teey nangam nangam nañ góorgóorlu waaye mel na ne mbir bi doy na waar ndax tey jii lu tolloog téeméeri nit ak ñaar fukk ak nangam juróom benn fukk yëpp ak ñett yëpp di wàllante bi 64 yëpp itam di cas contact